am li am ci ay dem-dem ren ci Touba kenn xamul nu mu toll da leen di fàttali li nga xamante ni rek moom mooy deux mille quinze quatre mille personnes demoon nag mais ren na dafa daal di euh, doublé wu. ñu ñëw rek ci la brigade nationale des sapeurs pompiers ñoom natt démb ci mercredi bi ci la ñu euh, waxaat li nga xamante ni rek moom mooy nouveau bilan bi ñu ngi ñuy rek euh, ça passe entre dix huit à vingt et un personnes yoo xamante ni rek ñàkk nañ seen bakkan ci li nga xamante rek mooy yoonu euh, Touba bi euh, euh, selon ki nga xamante ni rek moom mooy yor communication de la brigade nationale des sapeurs pompiers démb ci mercredi bi euh, vers 9h58 le poste de commandement a enregistré un accident mortel qui s'est produit sur l'axe euh, Gossas jourbel manam ñaari auto ñoo def collision benn njaganjaay ak ben transport en commun ba am 14 euh, personnes yo xamanteni été am nañ ci ay gañu 52 victimes ñom ñoo nekkoon ci auto bi mais ñet ñom ñoo ci seen bakkan ñett yooyu nag ñoom ñoo dolleeku euh, ci 18 bi muy 21 personnes yoo xam ne rek ñàkk nañ seen euh, euh, bakkan ñu ñëw aussi ci la cellule de communication des soldats du feu li nga xamante ni rek loolu la ñu wax sëfoor si maanaam ñu dawalee prudence ak respect ndax ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci yoon bi diggante démb ak yi nga xamante ni rek moom mooy ji ak leen di jéggi na dayo ñu ñëw ci affaire du motard de la police le le vendeur de téléphone portable livre sa version des faits li nga xamanteni rek mo gëna a ci euh, réseaux sociaux yi ci màggalu Touba bi muy benn way bo xamanteni ni ngi wuyoo turu euh, Soyibou euh, Bousso patron de Soyibou telecom ginnaw rek bañu gisé ci réseaux sociaux bi mu nek ci otoom benn motard diko escorter escorté fi nga xamanteni ni moy sens interdit bi mbir mi nag daal di lëmbe li nga xamni rek moom moy réseaux sociaux yi mais ki nga xamni rek moom moy Soyibou bako wa l'observateur cc def ak moom li nga xam ni moom mooy entretien indi na li nga xamante ni rek moom mooy mbir mi naka la demee nee na koy waxee ci réseaux sociaux yi demeewu demeewul euh, nu ni mel li tax affaire bi nga xamante ni moom moo tax euh, policier bi ñu daal di koy euh, suspendre demeewul noonu nit ñi nag ñu ngi naan fi nga xamante ni rek moom mooy Pikine la jugee dem fi nga xam ni rek moom mooy Touba nee na lu ni mel demeewul noonu gaabu la jugee ànd ak ay xaritam dem fi nga xam ni rek moom mooy Touba mais nit ñi dañ koo xàmmee ndax otoom ñëpp xàmmee nañ ko ndax day yëngu ci li nga xam ne rek moom mooy wàllum euh, social nee na bañ ko gisee commencé yuuxu li nga xam ne rek moom mooy euh, turam ci la nag euh, maanaam utee ko escorté ndaxte rek lu mu yoroon ci li nga xam ne moom mooy xaalis ci otoom dafa bëri woon bëri boo xamante ni nu rek la mënoon def waaye nag mbir mi nekk na loo xamante ni lu ko metti la trop ba tax na rek mu ngi sukk ay ëmam di jéggalu képp koo xamante ni rek mbir mi dérange na la Nous avons eu une information 118 000 euh, migrants irréguliers interceptés au large de Saint-Louis un patrouilleur de haute mer de la marine nationale sénégalaise a intercepté 118 migrants irréguliers au large de Saint-Louis a appris l'APS de la direction de l'information et des relations publiques des armées dit euh, ci mercredi bi Binat la bile information immigration clandestine bi de bëri fi nga xam ne rek moom mooy Sénégal ginnaaw nit ñi nga xamante ni rek ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan boobaak léegi démb daal marine sénégalaise bi daal jàpp nañ lu tolloog 118 personnes yoo xamante ni rek ñu ngi leen yeboon ci gaal fële ca large bu euh, Saint-Louis bëgg a dem fi nga xam ne rek moom mooy euh, bitim réew ñu ñëw aussi ci euh, maanaam gaal gi déparé woon Fass Boy te teeree ja ca Cap-Vert ñu ngi xamal ni rek ñooñu nekkoon ca gaal bi ginnaaw ba ñu fa defee 9 jours ci boobule gaal Sénégal maanaam dañoo mujjee panne seen moto bi ci boppam moo daal di panne am ñu wàcc di jéem a régler li nga xam ni rek moom mooy boobulee euh, moto mais nag mujjul mais daal ñu ci xamal ci information que ni ñu ci gën a bëri xiif moom moo leen rey dem nañ ba jàpp li nga xam ne rek moom mooy mbonaat sax daal di koy lekk ci boobulee euh, gaal mais njëriñu leen euh, dara ñenn ñi xiif moo leen rey ñenn ñi mar moom moo leen mais teewul xale yi ñu ngi gën di déterminé wu bëgg dem fi nga xam ne rek moom mooy bitim Euh, ci le soit du candidat de Benno Bokk Yaakaar Macky Sall euh, fixe la date maanaam li nga xamante ni rek moom mooy choix bu Benno Bokk Yaakaar mu nekk loo xamante ni boobaak léegi euh, ñu ngi toog di ko xaar ñu ngi xamal ni rek moom président Macky Sall daal fixé na li nga xamante ni rek moom mooy dat pour wax kan mooy doon candidat bu Benno Bokk Yaakaar mi ngi ko fixé nag euh, samedi 9 septembre 2023 euh, mu nekk nag choix boo xamante ni jamono ji moom la ñëpp toog di xaar waaye nag selon aussi les mêmes informations ñu ngi xamal ni rek candidat Benno Bokk Yaakaar mais aussi ñu ngi jot ci information que remaniement ci biir euh, gouvernement bu Macky Sall dina am lu yàggul dara parce que bu ñu sukkandikoo ci ay information ñenn ñi nga xamante rek ñoom ñoo samp seen euh, ndënd pour présidentiel 2024 am na ñenn ci ñoo xamante ni rek ñu ngi wax moom président Macky Sall bu defee choix am ba pare dañuy génn ci li nga xamante ni rek moom mooy Benno Bokk Yaakaar daal di amal li nga xamante ni rek moom mooy seen yoonu bopp ñenn ñi sax ñu ngi def li nga xamante ni moom ay campagne sous terrain en tout cas daal ci gàttal moom président Macky Sall daal samedi 9 euh, septembre la joxe rendez-vous pour identifier sénégalais yi ci kan moo war a euh, kan moo ko war a ci élection yu ñu jëm. ñu ñëw aussi euh, ci beneen mauvaise nouvelle pour Bougane Gueye Dany un célèbre animateur quitte le Narive Bougane Gueye Dany vient de perdre l'un de se meilleurs animateurs de télé ginnaaw rek euh, semaine passée départu euh, Soufia Diatta ñu ngi ñuy xamal ni aussi ki nga xam ni moom mooy Momo Wade moom itam daal dinay déposer li nga xam ni rek moom mooy démission fële nga xamante ni rek moom mooy D-Média niñ ko bind génnee na ci euh, maanaam une semaine boo xamante ni rek moom Bougane Gueye Dany perte na ci yoo xamante ni rek ay nit lañ yoo xamante ni ràññee nañ leen bu baax a baax ci boobule télé. keneen ku démissionné ci li nga xamante ni rek moom mooy poste ministre conseiller euh, ci gouvernement bu Macky sàll moom mooy euh, yuusu nduur moom Youssou nduur nag ñu ñuy xamal ci information que demo démo démissionné na ci poste bi nga xamante ni rek moom la yoroon ci wàllu. nguur bi selon nag les informations ñu rek réeroowul ak benn yoon ak ki nga xamante ni rek moom mooy le président Macky Sall waaye nag moom Youssou Ndour lu mu bëgg moom mooy daal ñoŋal mouvement wam bi di fekkee ma ci loolu tax nag mu daal di jël décision quitter ci li nga xamante ni rek moom mooy poste ministre conseiller bi nga xam ne rek amoon na ko ci nguuru Macky Sall ñëw aussi ci manifestation pour la libération de Sonko et si le f fixe une date. Ce rassemblement est prévu euh, ce vendredi 8 septembre 2023 à la place de la Nation Madame ñi de que rek F24 fixé nañu une date de rassemblement euh, Madame euh, vendredi 8 septembre lañ fixé à la place de la Nation Nous bien communiqué boo xamante que rek daal di nañ koy fësal ñoom nag de jublu rassemblement du leen rek la libération de Ousmane Sonko ak Madame libération association euh, détenu politique yëpp maanaam ñu organiser itam li nga xamante ni moom mooy ay élection yu libre transparente et inclusive bu ko defee ñi nga xamante ni daal bëgg dañoo bëgg a bokk yëpp daal di bokk ci li nga xamante ni rek ci lañu jëm muy présidentielle 2024. ñuy ñëw aussi euh, ci grève de la faim bi nga xamante ni rek moom Ousmane Sonko daal dina koy euh, arrêté selon les informations waaye nag ñu ngi xamal itam moom Ousmane Sonko jamono ji lekkam bariwul benn yoon ndaxte nag doole bi muy lekkee sax na jamono ji mom Ousmane Sonko amu amu ko maanaam sàq sax bu deuguer Ousmane Sonko mënu ko jamono ji dal ay perfusion lañu nek nekk di ko defaral pour mu euh, dolil ko waye dal arrêté na grève de la faim bi dal mais ba Ousmane Sonko dafa faible foofu ci hôpital principal bu Dakar. ñu ñew ci rédacteur en chef adjoint de Sénégal bu ñu placé wona garde à vie mom nag luñ ko don euh, reprocher moy dafa publier Ben. article le 2 septembre euh, Manam un article intitulé La déclaration attendue de Ousmane euh, Sonko mon Khalil euh, Camara euh, rek bi nga nangu article bi mom moko publier rek bind diffusion de fausses nouvelles diffamation outrage à un corps constitué et offense au chef de l'État ginnaw rek taxaw bi nga ay journal journaliste euh, taxawu nañ ko ko lu ci melni ni Synpics appel ak yenen ak yenen selon son avocat maître Moussa Sarr ñu ngi xamal ni daal nañ ko libéré mom Khalil Kamara Demb ñu ñëw aussi ci benen information le Prodac au cœur d'une affaire de porno divulgation le Prodac au cœur d'un scandale financier non illustré. Euh, le site du PRODAC euh, a fait l'objet d'une cyberattaque victime d'un acte de divulgation de photos intimes Wa euh, PRODAC n'a jamono ji lépp li nga que mon moyen moom mooy compte supprimé nañ ko page yi sax dañ ko mujjee modifié ndaxte rek dañ leen di divulgué dañoo divulguer photos intimes. le PRODAC a saisi la DSC euh, d'une plainte contre X Nous euh, avons lu ñuy toppee accès et maintien frauduleux dans un système informatique et entrave au bon fonctionnement d'un système informatique Nous avons dit que nous avons xamle vendredi 18 août euh, dernier ba ci page Facebook sax a ji kenn mënu cee am accès Nous nga ne rek ñoom ñooy enquête bi pour mën a xool lan moo waral lu mel le quotidien ma Diagne offre des villas à ses journalistes, une très bonne nouvelle pour les journalistes de, de Le Quotidien qui bénéficient euh, d'un toit grâce à leur patron Madiambal euh, Diagne moom Madiambal Diagne nag acte la def ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy ay journaliste am technicien wam ak chauffeur am ak euh, lépp maanaam ay villa euh, subventionné d'une valeur de douze millions moom la leen daal di jox maanaam képp koo xamante ni rek bénéficiaire nga ci six millions ngay fay mais nag c'est payé à dix mois yoo xamante ni rek moom nga ko dix ans autant pour moi yoo xamante ni moom nga ko war a fay maanaam la cérémonie cérémonie de remise des clés aux employés du quotidien euh, samedi 9 euh, euh, septembre à 10h fof nga xamanteni rek mom moy Bambilor ci leen war joxe li nga xamanteni rek mom moy yooyu les clés ñu tojee ak Gabon libre de ses mouvements l'ancien président pourrait s'exiler moom nag ancien président bu Gabon bi di Ali Bongo ginnaaw biñ ko euh, euh, wàccee fa nga xamante ni rek moom mooy euh, bu Gabon par les militaires ñu ngi xamal ni rek désormais Mom Ali Bongo il est libre de ses mouvements il pourrait même s'exiler au Maroc loolu daal la ñu daal di bindee information d'ailleurs dans un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, il est noté l'importance de préserver la stabilité de ce pays, frère de la quiétude de sa population. Le Maroc fait confiance à la sagesse de la nation gabonaise de ces forces vives de ces institutions nationales Wa euh, communiquer bi le marocain yi dal di euh, bind ñi nga xamanteni rek ñom ñoy euh, militaire yi waaye désormais mom Ali Bongo dal libéré nañ ko ci ay mouvement wa mak leppam bu ko nexé rek mën na exiler dem fi nga xamanteni rek mom moy Maroc ami chers fidèles internautes li lañ leen indiloon tay ci seen journal VIP di leen jox dig daje inshallah allah demee ci yeneen actualité d'ici là portez-vous bien et restez assurés suivre nos programmes sur VIP People TV. Merci. Hello guys, une bonne nouvelle avec TapTapSend, une nouvelle application sûre et rapide. envoyer de l'argent partout à travers le monde que ce soit l'Europe ou les États-Unis, avec TapTapFM, utilisez le code promo TANGE26 e et gagnez 10 euros sur chaque transfert. Téléchargez l'application sur Apple Store ou Play Store avec TapTapFM, tout est révolu.